maa ngi tudd Matar Sall euh, juriste la nekk directeur de cabinet du président conseil national de régulation de l'audiovisuel euh, sama ñëw Koungheul dafa ñëw dafa nekk loo xamante ne nii mbégte bu baax lañ ci am euh, bu njëkk bi mooy doomu Koungheul lañ ñaareel bi mooy dañuy yëngatu ci mbiru presse kon ce qui fait que chaque fois suñ ñu wooyee ci loo xamante ne ci mbiru presse la suñ ko dañ ciy dem waxuma la nga lañ le fait que nous ñëw vraiment encore une fois presse nous ñi commencé di wu soxla nañ ay ndimbal soxla nañ donc nous taxoon ñu vraiment première édition bi yàlla def aussi euh, ñu comme parrain donc loolu dañ bu donc tax tout pour nous. même si fekkee vraiment encore une fois na euh, ñoom ñëpp xam nañ donc waye dañ né dañen ñëw pour féké li parce que comme ni waxé presse dafa nekk secteur bu am importance donc ñi ci nekk suñ suñ suñ leen mëna jappalé dañ ko def ci ci cadre bobu wax dëgg ci lañ ñëw au moins pour encourager leen parce que première édition la mais également pour féliciter leen ci initiative bi aussi di len xamal ne vraiment encore une fois ñun nous ñu woo suñu ko temps mayee wala donc là encore une fois même su féké que ñëw ñom ñom nañ sommes né am nañ ñu ci sen côté donc nous nañ len jàppale mën nañ euh, donc accompagner donc ñu ngi leen di manifester disponibilité di len féliciter encore une fois le coordonnateur euh, donc départemental mais également le coordonnateur régional bi nga xamante de dafa ñëw jàppale ay ay ay ay mais également ñëw ci tous convention des jeunes reporters du Sénégal donc muy wane ne wax dëgg yàlla lii euh, déjà lu am solo la dina tax vraiment ñu xam ne Koungheul seen presse bi mi ngi taxaw aussi donc là lépp luñ ci mën pour jàppale leen en renforcement de capacité wala beneen anam bu mu mënta doon donc là considérer leen ne donc vraiment vous avez avec nous également le fait que ñu yemuñ ci def euh, journée bi rek mais dañ ne dañuy def tématique boo xamante ni ni dañ ciy waxtaan woo vraiment koo xamante ni ni conférencier Cheikh Tidiane saar di journaliste wax dëgg yàlla sama rakk la aussi euh, yàgg nañ tase mais wax dëgg di ko félicité ak euh, sëñ bi mu àndal donc ñoom ñëpp ñu def ci euh, communication boo xamante ne wax dëgg yàlla yaakaar naa ne ñëpp jàng nañ ci di wane njëriñu presse toujours voilà ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla ñu fekkewaat ko at yu bëree bëree bëri bëri yàlla def ba presse Koungheul bi aussi nek presse bo xamanteni ni day gëna am doole gëna taxaw. waaw ñun ñëwoon waxtane gërem presse locale bi organiser mbir mi ci trou euh, président ak ñu ci japp ñep wax ne tay thématique bi mu ngi sonkon ci participation citoyenne ci taxaway bi nga xam presse bi war nako am japp na ne presse comme liñ ko waxee presse mom da wara def rôlam bi nga xam mom mom lañ ko sar si euh, loi 2017 bi waye timit presse bobu bu koy def war naa mën a xam euh, taxawaayam mag ñu nu mel moo taxoon ñu gënoon a ci rôle bi nga xam ne war na ko jouer waaye jaarale ko ci participation citoyenne bi nga xam ne ku nekk ca gox bi nga dëkk war nga caa mën a góorgóorlu de sorte que di nga mën a contribuer ci développement gox boobu ma ñaax rek gox yee goxaat yi à travers ñu ko jiite les élus territoriaux ñu gën a euh, di ñu gën di communiquer ak askan wi ci li ñu leen dénk ndax as dañ leen a dénk kon war nañ di taxaw di leeral taxaw di leeral askan wi ne li ñu leen dénk fii lañ ko def lii lañ ci bëggoon a def pour que askan woowu au retour xam bu xamee mën a euh, gën a mën a def lu ñuy wax la contrôle citoyen parce que dañu nekk ci ère boo xam ne ci décentralisation ak trois bi indi principe jagleel ko léegi citoyen yi nga xam ne dañu am sañ-sañ pour contrôler cet acte à travers la loi 2013 comme ni ñu ko waxee jàpp naa ne daal lay amatul waaye ñu ngi ñaax ñi ñu jiite ñuy ñuy jàkkaarloog askan wi di leen leeral waaye ñu presse bi tamit nañu gën a xam loolu ba nga xam ne bu ñu ko xamee ñoom ñoo koy gën askan wi ñu ngi leen di leen sant merci. je m'appelle Mork je suis journaliste euh, à la radio ISN par ailleurs coordinateur régional de la convention des jeunes reporters au niveau de la région de Café. Donc euh, nous sommes aujourd'hui à Koungel dans le cadre d'une euh, journée de la presse locale qui nous a invités à l'honneur de notre de, comment Omar Dramé, donc, euh, au cours de cette journée, nous avons été très satisfaits dans le cadre où une thématique a été développée qui parle de la participation euh, citoyenne au processus de développement, le rôle euh, de la presse. Donc, vous, vous, en saurez que nous nous terminons vers des débats d'orientation budgétaire où le citoyen doit savoir, dans le cadre de la gestion de l'affaire budgétaire, donc ce thème est tellement important, euh, d'où le conférencier est venu largement sur euh, le rôle du journaliste qui est d'informer, juste et vrai, mais aussi qui est d'être responsable dans le cadre de, du traitement de l'information. Donc il a, au cours de, euh, la conférence, il a appelé à la responsabilité de tout, tout notamment le journaliste qui joue un rôle très important dans le cadre du développement. Donc euh, aujourd'hui, euh, nous ne faisons que féliciter la coordination de Kungen qui a pris l'initiative d'abord, dans un premier temps, d'essayer euh, d'informer, mais essayer de renforcer la capacité, la capacité de, de capaciter les acteurs de la pêche, mais aussi les citoyens de manière générale, pour qu'ils, de manière générale, pour qu'à l'avenir, ils sachent comment participer au développement de leur localité. Donc euh, c'est une satisfaction, totale à l'endroit de nos collègues, euh, confrères, journalistes qui sont à Kungel, à qui nous, euh, nous donnons aussi une, entière satisfaction, mais aussi à qui nous avons, nous avons l'obligation de les accompagner, toujours dans le cadre de renforcement des capacités, parce que ça, la formation continue est, est, un devoir pour tout journaliste qui euh, qui rêvent d'être excellés dans ce métier. En tout cas, euh, je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à cette journée, euh, en commençant par le parrain Matar, qui est un homme du métier, parce que ton juriste, de juriste en droit des médias, mais aussi le conférencier, notre, notre, notre, frère, cher ami qui est revenu largement, largement aussi sur le rôle

ci conférence ci euh, cérémonie boobu tey ki nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane mu nekk journaliste correspondant euh, APS foofu ci région bu Kaffrine ñëwoon defal ñu li nga xamante moom mooy programme bu am solo boobu thème bi am solo boobu mu nekk thème d'actualité parce que ku ci nekk war na sa mën gis sa bopp ci li nga xam ne moom mooy développement bi nga xam ne moom mooy développement local wax na ko léegi ci biir discours am entre li nga xam ne mooy la mairie na ko kon moom mooy li nga xam ne a a jox askan bi parce que <clears throat> presse bi mu ngi def euh, liggéey bu am solo ci li nga xamante moom mooy ci département bi ci région bi ci fi nga xam ne moom mooy ci territoire Sénégal kon a a war a mën a def en tant que journaliste ci jàllale mooy information yu jaar yoon yoo xamante li ngay wax da nga koy am sukkandiku fu leer te loo xamante ni bu ëllëgee lu mën a xew ñu ne ah diw sàngam moo wax lii foo ko teg kon loolu la ñuy ñaax mbokk ñu gën a collaborer doon benn doon li nga xamante woote li nga xamante moom mooy collaboration wala coordination bi ñu ko tënkee a indi suñu dimbal suñu li nga xam ne moom leen nekk rawatina suñu diggante ñoom ak askan bi métier bi nag métier bu noble la métier boo xam am solo la ki nga xamante moom mooy seen prin bi mu ngi Matar Sall mu nekk ci directeur cabinet ci général dañ koy remercier encore une fois ci li nga xamante moom mooy disponibilité am ci li nga xam moom mooy engagement ci li nga xamante moom mooy déplacement parce que en plan temps charge loolu te bu neexoon mu yebal mais bërki démb la jógee voyage woo ma wàcc aéroport 17h jël jël oto ñëw directement fi nga xamante moom ma ci kon wane ne mooy natif muy net moom ma ci département bu nekk muy Kër Sëriñ Jibel neex na ko war na ko kon ñun ñu ngi gën a ñaax ñu gën a roy def ñu moom parce que li mu am yëpp nee na presse moo ko may moo tax mu am moo tax mu jël ay engagement am ñëw comme ñun ay ndaw leen yàlla dimbali ñu ngi ñu ngi toog a tàmbali kon neen def ñu moom ñi nga xam ne ñoom ñu suñu ay doyen parce ñun ñi nga xam ñoom ñooy euh, nekk ci département bi parce que ñu ngi koy def di tënk gërëm euh, ñëpp daal képp xam ne participé jàppale nga ñi nga xam moom mooy tudd ñëpp parce que am na ñoo xam ne woo nañu soo ba tey ñu ngi woote di dugal seen participation te woowu leen sax si bés bi kon loolu mooy wane ni bés bi ñor na leen dernier mot bi ci moom mooy di gën a ñaax nit bokk ci li nga xamante moom mooy convention seen reporter du Sénégal am na njëriñ parce que da lay permettre wax nañ ko léegi parce que tey ñu ngi préparé benn programme bu am solo ci loo xamante ni tey ay raisons yi war a dem participer loolu dañuy neex fu ñu dem ñun suñ ndey joor gis na doomu Koungheul ñi wala fu ñu dem suñ càmmo gis doomu Koungheul ñi parce que coordonnateur euh, coordonnateur euh, régional bi wax na ko léegi Morka war ngeen mën a dem si moom am ay information yoo xamante ni ngeen dem si moom sans ngeen mën a jaar si moom parce que heure boo ko wooyee ngeen jot ko ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm doomu Koungheul yëpp rawatina le prin vraiment ñu ngi am mbégte bu baax di kontaan bu baax a baax vraiment di jox di wax dig daje ba beneen je vous remercie encore une fois